di leen baalu àq di leen baal di ñaan ci boroom bi subhaanahu wa taala mu jéggal ñu suñuy bàkkaar ginnaaw bi ñu jéggalante rëcc rëcc yi dox suñu digganteeg suñu moroom dellu di ndokkeel bu baax ci bis bu màggi bi di sayidul ayam mi yowmul jumaa di ñaan rek mboolem lu ñu fi jaamu yàlla nañu ko yàlla nangul waaye tam fulal ñu ko bi jaaxi seydi wujuut salallahu alayhi wa sallam way itte yeeg way aajo yi way feebar yi si hôpital yeeg ñi koy weyaale yàl na yàlla saafara ñu saafara leen way tukki yi si géej géeg jéeri jéeg jaww ji yàl na yàlla delloo si leen ak jàmm ci seen jaboot ci daraja yonente bi alayhi salaatu wassalaam bu ko defee di nuyu ñëpp jiital ci kilifa kër gi di cerno xaamidu baan ak mbokkam bi baax yi nga xamante ne ñoom la bokkal ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla di leen ziyaara fa tabaarakallaahu yal na yàlla nangu yëpp muy nalnal yi nga xam ne moom la ñu sumb yàlla mi nga xam ne moom ku mu nga am kàttan yal na leen yàlla yokk kàttanal bi jaay saydu wujur sallallahu alayhi wa ak mbokkam yu baax yi nga xamante ne ñoom la feggool ci mel ni ñu ma ba fa tabaarakallaahu Serigne Samba si fa tabaarakallaahu ñoom ñëpp mboolem ki yeewoo ci kër gi rek ñu ngi leen nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla waaye jël nuyoo yeeg ziyaaraati tegal ñu ko ci loxol suñu mbokk mu baax El Hadji Oustaz Abdallahi Ndiaye fa tabaarakallaahu mu demaa leen ñu géew tegal ñu ko ci loxol imaam El Hadji Moussa Gueye ba mbooleem ki yeewoo ci kër gi rek fa tabaarakallaahu ñu teg nuyoo bi ci seen loxo mu jàllaleel ñu ko wesaareel ñu ko ci ñoom ak ziyaaraateeg yépp fa tabaarakallah di nuyu ñépp auditeurs auditrices bàyyiwuñu kenn maasa allah waaye jël nuyoo yeeg ziyaaraat yépp teg ko ci loxol euh, soxna Faatu Sooxa ak euh, borom këram di Serigne Mouhamadou Jara ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara soxna Maki Jara soxna Zeynab soxna Googu Jara ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu sëriñ Fàllu Jara sëriñ Cheikh sëriñ Papi fa tabaarakallaahu Maymuna Jara ñëpp bàyyiwuñu kenn yal na yàlla yokk bu baax a baax a baax rawatina ña fiite soxna sa fiite ca Kër Masaar moom itam mm, ñu ngi koy ziyaara mi soxna jaram moom itam yàlla na ko yàlla yokk taxawu ak njaboot gi ñëpp bàyyiwuñu kenn masha allah bu ko defee ñoom itam ñooñu koy wesaareel ci mboolem auditeur auditrice rek boo xamante ni ñu ngi ànd ak ñun ci si Safina TV incha allahu ñi wesaareel ñu ko ñëpp fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin fa tabarakallahu bàyyiwuñu kenn buñ tuddee Serigne Diarra moomu rek ak soxnaam moom mooy demaaleel géew mboolem auditeur auditrice fa tabarakallah asanul xaalihin bawuñ kenn ah comme ni ñu ko baaxoo def seen émission at taskira euh, ni la ñu fas yéene àndaat ak yéen euh, di ñaan rek lépp loo xamante ni ñu ngi koy fàttalante yàlla nañu yàlla dimbili ba lépp lu ci digle ñi jéem ci texte ñu tànk ku ñëw fekk ñu ci waaye itam ku dem ah dal di ñu ciy bàyyi waaye itam lépp loo xamante ni itam lu jëm ci wàllu tere la ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala ah, yàlla nañu yàlla dimbali ba loolu ñuy tere ba kenn duñu ci fekk incha allah waaye di ñaan yàlla itam képp koo xamante ni danga nekk ci safaan ah na la yàlla dimbali ba safaan boobu nga jéem ca moytandiku ba jéema tegu ci yoonu njub muy yoonu siraatal mustaxim yàlla man na ko sañ na ko yàlla nañu ko yàlla defal ndax boo xoolee borom bi subhaanahu wa taala li mu jël ci ay yonent bari lool jàngal leen muy al anbiya doon cent vingt quatre mille yoo xamante ne yàlla jël na leen jàngal leen jox leen la mu leen di jox ñu yore loola di ko jëfandikoo kenn ku ci nekk ah fa tabaarakallaahu mu yam ci yow waaye ànd ak loolu mu gis ne xëy na bu ku nekk baaxee itam loola baax na waaye looluñ naan daañu dajul fépp ci ginnaaw ñoom anbiya u yooyu amaan na yeneeni doomu aadama ñoo xamante ni du ñuy al anbiya borom bi subhaanahu wa jëlaat ci anbiya u yooyu tànnaat ca 313 yabal leen maanaam yónni leen wàcce leen ci population bi ñi jàngale ak jàng waaw ñee ñoom lañu jàngoon dafa yemoon ci ñoom rekk fa tabaarakallaahu te ñoom rekk la concerne waaye amma nag al mursaluuna yi nag ñoom yàlla dafa bëgg ñu jël yaatal ñu jël leen tasaare leen ci gox goxaani ko defee kii bu nekkee côté bële nekk côté bële ku ci nekk fa nga nekk nga jéem faa woote jàngale fa ña nga xamante ne xamuñu fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin ah, yàlla jël ci 313 tasaare leen ci àdduna bi 313 yooyu bokk na ca eh, suñu maam aadama ak aw nitam yonent yàlla nuux ibrahim ñépp mu doon ay siècle siècle di ñëw ba ci suñu yonent bii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mujj ñëw waaye tam ndar kàpp ñépp waaye doon ci bind mu jiitu ca yónnu ga mu doon ki mujj ñëw ndax bu xasee ñëw amaatul keneen kuy ñëw waaw moo waral léeg-léeg ñaare bu dee ci penc mi danañu ko miin bu ñu wootee miti nag yu mel ni ki yooyu eh, balay kilifa gi di wax ñay war a wax ñépp lañuy jiital ñi jiitu wax wax ji léeg-léeg avant muy ñëw sax eh, ñi am ñi ñu yabal ñuy wax ca ñooñu ñuy yebal ñuy wax sax balay kilifa gi di ñëw duñu ko bëggee noonu ñoom dañuy bëgg sax lañuy wax bu ñu koy wax ñi wax ko ci kanamu kilifa gi ndeysaan waaw waaye bu xësee teew nag aca ñi tàmbali wax lañuy wax ca kanamam moom nag mooy mujj jël kàddu gi ba bu daanelee rekk ndañe ma daldi tas mu ngi noonu loolu misaal mi rek doy na ci sëkk ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam yenent yi jiitu woon ñépp gis nga kenn ku ci nekk dangaa ñëw tàmbali di wax waaw waaw am na ku ñuy wax aadama ñëw na tàmbali moom itam di wax waaw di wax ba heure am jeex ñi ñi arrêté ko ne ko sa heure jeex na liñ la mayoon ci ay minit wax nga ko waaw am ku ñuy wax noox moom itam mu ñëw heure jeex ñi signalé ko ne yow itam liñ la mayoon ci ay minute jeex na ah ku ci mel ni Ibrahima ñëw heuram jot ñi siñaale ko ne ko yow itam liñ la mayoon ci pour looy wax jeex na noonu lañu koy toppe di ko toppe ba ci yonent yàlla Isaa ah, waaw moom itam heuram jot ñi ne ka yow itam signalé ko ne ko yow eh, liñ la mayoon ci minute jeex na ndeysaanam waaw ah, mu des soppe bi nag rasulullah sallallahu alayhi wa moom nag eh, moom besam moom abadal aabidiina la bu xësee wax ba tëj jeex na kaneen dootul waxaat waaw kaneen dootul waxaat waaw moo tax mu daldi tàmbali moom itam di wax waaw di wax di wax ba heure am jeex yàlla ne ko yow itam sa heure jeex na waaye gis nga moom moomu kot heure boobu ba mu jotee yàlla da koo tànnloo waaw ne ko yow soppe nga xarit nga waaye ki nga xamante ne moo yore programme bi dimi mu koy signalé né ko sa heure jeexna na da ko xamal né ko yow moom yaay tanal sa bop ni ngi ko bëgg waaw sa borom joxna la ordre bo xamanteni sa heure bi moom jeexna na waaye na la bu fekki ni wiit bëgg nga man nga continuer di wax di wax ba aduna bi jeex ndey saanam bi njàngale mu rafet ma ndey ah dal di ne ko waw ma continuer liñ ma mayoon ci waxtu jeex na wax naa ko comme ni fi samay moroom jiitu woon waxe seen heure ba mu jotee dañoo dem nga ne man yàlla mayaat na ma bonus boo xamante ne bu ma bëggee mën na maa continuer di wax di wax di wax di wax ba bis di jot waaw ah, kon bu boobaa nag nu may def ndax damay continuer di wax ba àllaaxira jot mu ne ko déedéet lu mu gudd gudd itam di nga arrêté xoola lool ne ko lu mu guddi guddi wax ji lu mu gudd gudd gudd donte ne def nga fi seekali seekali seekali seekali at fa tabaarakallahu di nga arrêté nag ñu ne muhammad rasulullah sala ai sallam moom arrêté na mu ne ah comme demee na noonu te damay arrêté bay arrêté rek ah te lii lañ ma àppaloon baal ma doyloo ko rek ndey saanam ne comme samay waxtu jeex na lii lañ ma àppal naa doyloo lii rek waaw te jox nañ ko ne ko yow moom boo bëggee mën nga ci continuer di wax ba kera ngay doyal waaw mais bis bi moom dina jot waaw tax la waxoon jibri ne ko waaw wama bada haza yaa jibrail ne ko nag ala budda nag an talqalla man ta ñàkk nag nga dajeeg borom bi subhanahu wa taala kon gis nga jàngale bi mu fi jàngal mais te yow mu xam leen ni itam comme moom doontale moom jeexal na mission am jeex na waaye nee na mission bi dina amaat ci ay loxo yoo xam ne ñoo koy jël di ko saytu ba kere nag bufte bi di wal waaw di wal kon li mu yore woon noonu di diine ji kon da koy am ñu koy sàmm moo waral ñu ñëw jox Ababacar mu jiite julliti continuer diira at yi mu fi def waaw jóge fi Omar ñëw Omar jóge fi Ousmane ñëw Ousmane jóge fi àlliyun ñëw noonu ñu koy toppalante di toppalante ba suñ jëmmi jamono ji ku ñëw ba jeexal rek dem sa moroom ñëw ñi jëlaat kilifteef gi jox ko ci yeneen loxo waaw mooy dem ba ci kilifa diine yi waaw ñu naan diwkat mooy xalifa généralu nangam ci diine ji waaw di dox la lan mission rasulullahi sallallahu alayhi wa bi mu fi bàyyi woon muy lan di protéger alquran du deñ di fi jug waaw du deñ di fi jug ba ba pénc ma di jot fa tabaarakallah kon ñoo ñu nga xamante ne ñooy taxaw nag di saytu loolu di ko aar yàlla nee na man maa ko moom maa koy saytul sama bopp maa koy aaral sama bopp yow mi góor-góorlu nag ba jéem a bokk ci ñi koy aar yow yàlla nee na lu taq ci yow rek dinaa la aar moo tax mu ne inna nahnu nazalna zikr waaye wa inna lahu la xaafidun yàlla nee na ñun alquran ñun ñoo ko wàcce waaye ñoo koy wattul suñu bopp wattu gi nag nee na du du caagin ci mbindi mi kese lay watt déedéet dafay continue lu laal feggu feggu mbind ma lu ko laal yàlla dana taxaw waxante yow waaw boo setulee mu ne bul jige ndax lii dara du ko laal lu dul dangaa set kon képp ku ko bëgg laal rek fekkee nga tilim demal nga set ba pare door koo laal moo tax omar ibne xataab radiallahu anhu ak kàttan nga njàmbaar ga la muy jàmbaar jàmbaar jàmbaar avant muy dugg ci diine ji mu leer ko ne moom sobe la yore laabul mbokkam moomu ba mu ñëwee ñi ñi nettali ko ne ko sa waa kër gi la ngay bañ ci mbedd mi def nañ ko di ko nëbbu muy tuub nañ gëm nañ rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen loolu moom léegi laa koy lijjanti amul sax ma dem te ñëw bu mu ñëwee fekk mbokkam moomu ak borom këram boobu gëm bay jàng alxuraan di ko ngunum ngunumee bañ ko déggee ni mu ngi ñëw rekk ñi gaaw jël fooya gaaw làq ko ndeysaan alluwa ja dal di koy làq ndeysaan waaw ngir ragal goo xam ne ragal nañ ko ko ak doole ji nga xamante ne rek yàlla jox na ko moom Omar ibn Xataab radiyallahu anhu wa tabaarakallaahu ah ba mu ñëwee fekk ñi làqatu denc alxuraan ja mu ñëw leneen waa ana lu ma déggoon ngeen koy ngunu ngunu mi yéen ñaar ñi muy rakkam joojoog borom këram mu ne ka ah, yow koy déggoo dara ñun kay dañoo toog nii rek mu ne leen déedéet déggoon naa démb ci ngoon ku ñuy wax xabaab nettali na ne eh, yéen gëm ngeen yonentu boobu ñuy wax muhammad ba yéen a ngi si diineem waaw mu ne leen déedéet ñi weddi ko ba mu set ne ko déedéet gëmuñu ko waxa waxa wax noonu mu gëdd leen arsale leen foofu fa tabaarakallaahu eh, ba eh, loolu ñu naan seen yaram tàng deret ji tàng dal di tàmbali nag eh, dal di jug waaw ndax comme ñoo bokk deret ji am na loo xamante ni bu ko defee rek deret ji bu xësee tàng rek dootul mën a téye téyeeti seen bopp waaw nga seen moom Omar moomu dal di def xaatar xaatar ci diggam ak Eh, jëkkëri rakkam jooju di Fatima fa tabaarakallaahu ba xaw xaw xaw ko gaañ waaw xaw xawa a gaañ jëkkër ji doom ji itam di ko protéger moom jabar ji di rakki Omar moom itam di ko protéger di protéger jëkkëram ba gaañu ci ba nàccaale mu gis deret ji rek dal di tàmbali ne ko waa léegi nag ñoo ñoo gëm gëm nañ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ko gaa yi wax maa gëm maa nàngam waaw comme noonu ñu koy waxe xëy na mu gën a ormaaw waaw waaw lu la neex defal ci ñun waaw lu la neex rek defal ci ñun or Omar itam yaram wa daw waaw ndax xam nga dañu fonk deret e kii rakkam la gis na xaatar xaatar am na ba deret tuuru moom mu tuur ko jóge ci moom ah yaramam daw daldi tàmbali nag di ko neexal ne ko baal ma ma boo gisee ma def lii te kooku dafay dafay réer di leen sànq te ñun suñu diine maam ji li fi bàyyi woon ah, loolu laa bëgg ngeen yaru ci bañ ku jóge fële ñëw fëkk leen ak yooyu rekk laa ciy bañ ah di ko yeddi noonu ba ne ko eh, eh, jox ma téere bi ngeen di jàng muy àlluwa ji tabaarakallah ci la ko xamal ne ko nag àlluwa jii di alxuraan moom ku laabul rekk doo ko laal te yow laaboo ndax danga nga amee sobe ndax gëmoo nit ñi xamante ne mooy dugg ci diine islaam ah ci la ko digal noonu ba ah, mu gëm a ya xew yépp muy sangu set ah, gëm seede tudd baati yàlla yooyu muy ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadan rasulullah seede ne yàlla yàlla ku dul yàlla du yàlla fa tabarakallah ci la koy door a nangoo jox alquran jooju mu jël ko laal ko moom moomu nga xamante ne mooy ñaareel xalifa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf waaye rawatina ci diiney islaam kon gis nga la mu nekkoon ca sobe ba mu bëggee laal alxuraan ja te setul dañoo taxaw ne ko doo ko fi laale mu dem set door a ñëw taxaw sañ koo laal jàng ko nag mu neex lool dugg ca xolam ba fa tabaarakallah ca ni ñu ko alxuraan doon nettile sóoratu taaha booba la jot jàng muy taaha nga xamante ne yonent bi salaay salaam yàlla nga ko si doon junju ci jaamu yàlla ji nga xamante ne nekke woon na ko dem ba tànk yi niwi sadd mënu koo teg waaw mu colal ko waaw colal benn tànk bi xam nga léeg nit dina dina taxaw dina taxaw euh, ci taxaw gi mu taxaw doole ji poids bi da koy yen ci benn tànk bi taxawee benn tànk baneen bi dafay nekk rek mais du duñ fi teg doole ji léeg-léeg da ngay seen ku ne la yow dangaa toog sama kaw nga toog jël wéeruma doo toog normal waaw yont bi noonu la def dem dem ba tànk yi niwi mu taxawee benn tànk bi waaw yàlla nag di ko xamal coono yooyu ne ko jéggal naa la say bàkkaar wàññi ni ko yu njëkk yéeg yi mujj yéeg yëpp waaw jaamu yàlla gi defuma ko mu doon metti metti ci yow waaw mais dama ko def rek ngir nga def effort jaam yi yàlla yi roy ci yow nga wan leen yoon wi waaye bul ci def loo xam ne sa kàttan àggu ci waaw ba ngay teg loo xamante ne àttanoo ko li ko yàlla junj ne ko taha waaw ma anzalna alayka alqur'ana li tasxa waaw sa borom de wàccewul alqur'an ji ci yow ngir nga bew déedéet ngir nga sonn déedéet nga am coona déedéet solution la leen di wutal waaw topp ko ba mu jeex muy taaha ma anzalna alayka alquran li tasqa illa tazkiratan liman yaxsa tanzilan mimman xalaqa al arda wassamawatu al ula arrahmana ala arsi stawa lahu ma fi samawati wa ma fi l ard wa ma baynahuma wa ma tahta shara wa ma topp ko ba mu ba àgg ca aaya ba in bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa axfa yépp wallahu la ilaha illa lool asmaul usma ataaka hadisu Muusa ba la mu ci jot a jàng mu dugg ko waaw mu ne waaw ana gan kàddu moo gën a neex kàddu gi ana gan wax moo gën a neex wax ji wax leen ma fa yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk ma dem dugg ci li mu nekk ndax xam naa ne kàddu gi nim ma dugg nii ba ma juddoo ba tey masumaa gis benn kàddu bu ma duggee nii te li wërta wóor mooy lii du waxi mbindaafun waaw ah, lii du waxi nit de lii waxi càppaaculi la muy kenn jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu ne tegtal leen ma ko fekk na booba yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ña nga xamante ne ah, ñoo ko jotoon a gëm akus néew ñu nga nekk ca daarul arxam nga xam ne kër googu fa la ñu nekkoon di fa làqatu di jaamu yàlla ah noor du jotagul waaw bëgg julli te mënoo nodd di làqatu waaw di jàngalante ci seen biir waaw waaw noonu la def moo tax yi ba ñu demee ba eh, gis ne kuy waaj a ñëw am ñu taxaw ca bunt ba gaaw annoncé ne am na kuy ñëw a ngi ñëw waaw ko defee ñi changé waat position waaw moo tax ba ñu defee loolu xool gis ne Omar la gaañe dañoo tiit ña woon ca buntu ca néeg ba ca kër ga dañoo tiit waaw ni Omar la Omar la tàmbali di tiit di pat pati ndax gis nañ ne doole ji mu am fa tabaarakallaahu képp ku dajeeg moom rek yóbbu na la barzaq waaw ndeysaanam moo tax eh, Omar ti bi salaasalaam ne leen bu leen tiit dal leen bu leen tiit dal leen jàppaleen ko rek kon doomu aadama comme ñi fi doomu aadama yi mer rek waaw dooleem jooj bu mu leen tiital bàyyi leen noonu rek ndeysaan lu mu lu mu lu mu andi lu mu andi rek dina ko fi fekk bu dee jàmm la andi dina fi fekk jàmm ju mat sëkk bu dee ay la andi itam dina fi fekk ay wu mat sëkk lu mu lu mu andi rek am na fi bàyyi leen ko mu ñëw waaw moo bi mu ñëwee fa tabaarakallaahu ñaadam ñaadam ñëw igsi loolu ñu naan njël mu njëkk rasulullah sallallahu alayhi wa moom la ko def dal di ñëw rek gaaw njëkkanteeg moom rek poñe ko yëkkati ko ba ca kaw teg ko ne ko Omar masumaa gis ci yow jàmm foo aw rek aw ay doon gaaw yeddu ko foofu waaw ne ko nag loo fi indi rek mu ngi fi luy tànk mu ne ko tànk yi du lenn rek lu muy ashadu an laa ilaha illa wa ashadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga seen ñooñu nekkoon ci biir dal di kontaan waaw ndax ko amee doole ni Omar ni jékki-jékki dugg ci diine ñi jàpp ne moom mii kat dañuy faagaagal ñëw rey ñu ñu jeex benn yoon kon moo fi dugg rek uh, islaam am na victoire ñu daldi kontaan julli jot ñi bëgg a tàmbali foofu pour julli mu ne leen kon li ngeen di woote xanaa du dëgg li yàllaa ko wax moom ci moom la jóge lu ngeen ciy nëbb yeneen bi ne ko néew doole rek mu ne ko kon kay jeex na fi moo suñu góor ga tollu fële ca tiwaawoon ne wa innahum xaraju min baxdi kawnihim ñu ne ko ñaata la mu ne zujlan wa kaana zihaabu diini zaadaram mu ne islaam ba muy am ñetti nit ñeent yépp ñu ngi làqatu di julli ba ci fanweer fanweer juróom ñi ngi làqatu ba ci 39 personnes ñi ngi làqatu waaye quarantaine ba nag di Omar bi mu ñëwee nag lim bi àgg 40 nee na ca la làqatu ju julli del di jeex fa tabaarakallaahu mu génn dawal jëm ca kaaba ga mu ne képp koo xamante ni bëgg nga sa soxna doon ab jëtuur na ma ñëw dogale walla bëgg nga say doom doon ay jirim na nga ñëw dogale ñu ma tàqale sa bopp ak sa baat ñi jël baati kàddu yi sell yooyu di allahu akbar laa ilaha illallah def puul wuti kaaba ga mu tedd googu ngir joxe fa la nga xamante ni mooy seen jaamu yàlla kon bu ko defee mu ngi noonu ah, mbokk mi di ñu xamal ni rek li ñu amee woon ci waxtu daanaka mat na ah, du ñu def rek lu muy tënku ko foofu rek ba baneen yoon li olof di wax naan lu jiw a jeexul rek jógu fa incha allahu dinañ ko topp benn benn rek incha allahu muy seen émission at taskira ki leen ko doon defal di seen mbokk libaas jéen di jéggulu ñëpp fa tabaarakallahu auditeur auditrice bàyyiwuñu kenn waaye jël nuyoo yeeg ziyaaraateeg yëpp rek teg ko ci loxol sëriñ Mouhamadou jara comme ni ñu ko waxe woon bi ñuy ubbi ak mbokkam mu baax moomu di soxna Faat Sooxa ak njaboot gi ñëpp ñi demaale ñu mboolem auditeur auditrice bu mu mën a doon rek seen ginnaaw lu ci jum ñi xam ne mbaaxu yàlla la waaye lu si dëngulu ne rek matadik doomu aadama ñu leen koy jéggul ginnaaw bi ñu ko jégguloo borom bi subhanahu wa taala waaxiru daawaana ani alhamdulillah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu